vague bee boobu na moo tax gis nga man posé woon naa fi benn interrogation mhm. mooy est-ce que jotul tey Sénégal maire yi am immunité parlementaire comme les députés parce que le député n'est pas plus légitime que le maire. ñoom ñëpp ils sont ci li nga xam ne moom mooy suffrage yu yi ñoom ñaa kenn kenn nommé leen dañu leen a waaw. parce que dañu gis vraiment maire yi ni ñu leen di malmené li ñu leen di li ça ne veut pas dire que nag dafa war a nekk làqatukaay boo xamante ni maire lu ko neex def Sénégal. non mais Issa <laughs> ñu dem ci dernier point bi ñu daal di def récapitulatif. mooy tey discours Sonko de de de yeewi ñi nga xam ne ils sont liberté pour le moment. voilà ñoom euh, daanaka tey seen euh, conférence presse bi euh, wax nañ quand ci nguur ak Sénégal surtout le président de la République Macky ndax seen manifestation bi Abdoul Aziz Mbodj sànq mi ngi koy wax ñëwaat nañ ci largement ak li nga xam ne noonu la wari seen kër ñoom nag dogal yi nga xam ne moom la ci jot jël bokk na ci que ni dañuy def concert de casserole maanaam daal nit ñi di tëgg ak a ni ki àllarba ba la ñu dëgmal nga xam ne mooy yemook euh, ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk di weerum juin ñu amalaat manifestation mais ci manifestation bi lem ci ndax nag du ñu nungu quand même ñuy toog ñu di leen tere ay manifestation di leen assigné à résidence surveillée lañ koy tuddee xamuma sax ndax mm-hmm. euh, keroog gis nañu dañoo quadriller seen kër yi wax na ci sax xën que xanaa ñoom ñu faat leen mooy tere peut-être ñu bañ a dem ci li nga xam ne moo di manifestation loolu nekk loo xam ne moom lañ ci jëlee yi nga xam ne aussi comme ni ko ñëpp gisee saa su nekk ñuy dal ci kaw mhm. nguur ak Sénégal gi nga xam ne le président de la République Macky Sall moo ko jiite d'accord gis nañ tey gisoo ni euh, Sonko bu demee bay wax ni euh, advienne que pourra su fekkee le 29 soit ñu jàpp ma wala ñu faat sama bakkan dinaa manifester est-ce que mun ñoo wax ne Sonko sa euh, se radicalise carrément waaw mais c'est normal que les gens nee naa la préfet day violer la constitution violer les lois loolu la Sénégalais war a xam maanaam Sénégal mënoo fi tere manifestation mënul nekk juge bi am na manifestant dañu ñaari manifestant yuñ programme benn place mu ne risque à l'ordre public risque d'autrui à l'ordre mu ne en quoi affaire Landing Savané à 2009 AJPADS des décisions tellement maanaam loolu la préfet Dakar jël bu nekkee moom mokkalul droit administratif wala police administrative nañ jëw suñu université fale Bambey yi ñu defal ko parce que nekkoon na fa ñu defal ko justement donc capacitation il faut ñu bàyyi seen jëfu caaxaan yi ñu def maanaam manifestation yow mille forces de l'ordre li ñu def Dakar fii en terme de forces de l'ordre tu n'as même pas besoin du dixième pour encadrer manifestation te naan ñi ko éclairé nag ñooy lee responsables on l'a fait ci jàmm débat bi mooy que ndax mobiliser nañu mobiliser wu bu nekkee ñun mënuñ mobiliser nañu bàyyi bu ñu mobiliser suñu muy suñu ñu bu ñu échoué suñu ñun la c'est quoi le problème et puis muy laxaru ci article 61 ma xool nan lay def ak waa Benno Bokk Yaakaar bi biñ ne ñoom dañoo déclaré. ñoom ñu ne woon dañoo suspendre seen activité yëpp du fait de la pré campagne te nee naa leen maanaam pré campagne période de neutralité médiatique la mhm. mosul jotee ak liberté constitutionnelle de manifestation liberté de réunion les acteurs politiques confusion boobu gouverneur bu nga créé Dakar bu nekkee dafa am carte membre APR na ko wax mhm. docteur c'est extrême nga nga nekk nga jiitee une circonscription administrative comme Dakar tu prends une décision aussi politique c'est-à-dire di ko di jël un communiqué relatif à à à commander à à à l'arrêté extrêmement grave. et le gouverneur ma ñoom nañ xam ne c'est des fonctionnaires de l'État fi la leen Macky Sall di fekk. fi la leen Macky Sall di bàyyi. Mm-hmm. nañ servir les lois de la République. c'est extrêmement important fii. Mm-hmm. Sénégal fii. Mm-hmm. on est tous en sursis. si si le président Macky Sall lii muy def nii bu jàllee. yéen lay xëy ni leen fay leen seen rajo le président le président le président le directeur euh, feu Sidy Lamine mu ngi ko fi doon wax en nous rappelant que Hitler a été élu démocratiquement le président Macky Sall fii bi ñu koy fal fii ay manifestation 23 juin tout est parti de la bas mmh. des revendications démocratiques mmh. des théories et de la philosophie des manifestations justement du 23 juin mmh. moom moo ko fal donc tey nii mu bugg a delloo Sénégal fii Sénégal lu 80 nga xamante ne nii opposant boo xamante ni téewul dara nga wër ko 200 policiers. day gis ne régression démocratique moo am. non par par régression fi ne ci tyrannie lañ nekk. léegi fi nekk fi ñu ne moom yàlla a foofu ñu nekk image bi ñu jox àdduna bi jamono ji mhm. Sénégal bi ñu naan vitrine démocratique. ñuy def résidence surveillée de fait à à à à des hommes politiques lii ay Guinée laa ko doon gis. ñuy résidence euh, surveillée de fait ay ñoom ay ñoom ay ñoom Cellou Dalein Diallo. Mhm. loolu fii fii nii jamono la sa amu fi. ñu wax ci Abdoulaye ne laa jamais fait pour ki pour pour lu tax moom mu mu koy def nit ñi. docteur. docteur ñu wax si mbir moomu sax ndax déjà xarit Sylla mi ngi koy wax euh, ci discours bi nga xam ne Ousmane Sonko jël na ko yow aussi yaa ngi siy wax que euh, manifestation mënta ñàkk mais est jàpp nga ne quand même c'est une bonne idée bu fekkente ne une manifestation lay doon boo xam ne dañ koy kaleel date mhm. kaleel ko heure que jour tel dinañ manifester te dina nekk loo xam ne dañ yëngal dëkk bi est-ce que jàpp jàpp leen ne mais waxuñu lieu nee na cette ñu ko am ampleur bi mu war a am bu mhm. fekkente ko a demandé dem yóbbuli leen quand même dinañ mën a teel teg seen ay mesures teel xool naka la ñuy def ba mën a jàpp yenn gars dama ne dañ ko war a interdire parce que mënuñ ko interdire. loolu loolu gën na jigéen mais mënuñ ko interdire bu le 29 bi la ñuy wax. le fait que ngeen jàppal ko date ak yëpp est ce que jàpp ngeen ne aussi dina amaat ampleur. ah lu tax du am ampleur. ñun ñuy exercer suñu liberté de manifestation les militants de la coalition et les justement en demande encore hmm. léegi lan moo tax du am hmm. man li ma jàpp mooy ko bu ñu doon wootee chaque semaine muy fees parce que hmm. Sénégal foofu la toll ak tabaski gii di parce que xar yi dafa xar yi dafa jafe jiw gerte amul engrais cher na donc voilà les réew mi fu mu toll ceeb yokk na du mu tëddi lépp dëgg baa ngi nii est-ce que looloo tax ngeen profité ci contexte bi pour tout le temps def ay manifestations parce que gis nañu cocktail explosif jamono jii moo nar a am maanaam contexte bi ñun ci lañ bokk parce que ay Sénégalais ay acteurs politiques lañ si justement le contexte bu métti ñun ñoo ko war a porter ñun bu ñu def politique ñu ñoo war a porter loolu d' accord naa moom nag maire yi dañoo war a am immunité te dañoo war a am fonds politique. kan moo koy levé kan moo koy levé <laughs> yaa ngi kaasal sa bopp kan moo koy levé mais non mais mën nañ ko levé donc ah, yéen génn ngeen ci association ba nga xam ne moom moom moom lañ fi xamoon donc finalement ku ko war a levé ak yooyu yëpp ndey association mu am association mun sax am am mun sax beneen débat lay doon parce que ce qui s'est passé xam nga tey ñu ngi discuter ak président di wax di wax ci Déthié Fall ak Mame Diarra Fam immunité mais Ahmed Aïdara c'est le maire d'une très grande ville élu élu au suffrage universel direct dans sa commune buntu këram la ñu wax ñu jàpp ko yóbbu door mandat de dépôt flagrant délit dañ koy jugé vendredi un on dépouille l'autorité de toute sa mystique lépp lum lépp lu autorité bi yoon rek ñu ngi ko ñu ngi koy salfaañee bon ñun waxoon ne euh, fii fii les sénégalais sont élégants fii Sénégal fii kenn gënu fi responsable muy euh, ñi fi ne mais nag nit ñi dañuy fippu xam ñaka xam histoire dëkk bi nag wala dëgg si sa tànk mais nag président Macky Sall xam na ko de parce que moom moo ne. Hmm. la magie di clic. ah fera face à la magie du fric. dafa fàtte loolu. Hmm. fric rek la yaakaar gis nga Tivaouane ba mu fa demee bi ñu ne les bébés laa daf ne gaaw gis ngeen famille yi waaw gaaw leen waaye ñu dem joxe xaalis fric boobu. ça ne marche pas. Mhm. moo tax ngeen dem ci ay casserole ak yooyu est-ce que finalement du xëy na li ñenn ñi di wax fan yi euh, niki boobu ba léegi bu ngeen ko annoncé ci réseaux sociaux yi kenn yi finalement nag amatu leen pexe. mooy di wax ay casserole xam nga ñun lañ lañ lañ la ñuy wone. Mhm. mooy la beauté de la démocratie et de l'état de droit. démocratie dañ koy célébrer démocratie dañ xool dañ koy fêter ay dëkk yu gi lay gën a dem ni dañ ñëw ba ci wetu palais yi di di marche. Mhm. te gis nga suñu suñu dëkk dañoo xam lan arrêté arrêté Ousmane Sonko maanaam. lépp ëpp na un kilomètre deux kilomètres bi kenn kenn du fa sabaru xanaa ñoom ñoom moom bu buñ xewlee dara mën nañ dem bu ci palais ba ñu sabaru fa donc muy ay interdiction sélective mhm. voilà ce qui se passe dans le loolu dem loolu yëpp day wane ne démocratie en vérité dafa dafa ne au delà de tout ça doit être des débats et des débats de programme mhm. mais à condition que les la république ñu respecte ko mhm. mais à condition que les règles posées justement à donc euh, soient respectées mais ñi nga ñi koy violer constamment mooy autorité yi te nag encore hmm. les officiers de justice et les procureurs de la République ne doivent pas être des armes justement à donc politique hmm. que ces pouvoirs là loolu ci état policier la am. Euh, dama ko bëggoon laaj sax ci mbir moomu. Euh, mhm. concert de casserole bi ndax dama gis ñuy partagé benn article bu article huit euh, code des contraventions ñu wax ne les auteurs ou complices de bruit. Mhm. tapage ou attroupement <laughs> injurieux ou nocturne troublant la tranquillité des habitants sont mhm. passibles de peine <laughs> pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt CFA au plus est-ce que loolu tey gars yi mënuñu finalement. làqutu ji waa xam <laughs> nga waa c'est vrai que euh, li nga xamante moom mooy euh, tapage nocturne loi bi yoon da koy da koy tere moo xam da nga ko def ci biir kër wala ci biir na wala ci biir koñ mais bul fàtte ne même loi bi wax loolu dafa def une précision maanaam mm. bu fekkente ne ay mbir la yoo xamante ne dafa dafa aadawoo ak cosaanu réew mi su boobaa du dugg ci cadre boobu noonu ay su boobaa boobu day échappé ci règle boobu léegi nag est-ce que bii parce que sabar bi bii taba ngay tëgg rek mais bii moom ay kubéeru cin ngay tëgg xaw ma ndax ci logique boobu wala wala kii klaxon yi aussi mën nañ klaxonné est que da cee bokk ci tabage nocturne <laughs> mais comme si la nuit aussi kenn du klaxonné ah waaw mi ngi noonu de <laughs> alors alors ñun daal li xam mooy